mesdames messieurs amis chers internautes c'est plaisir saa su ne di jàkkaarloo ak yéen alors tey euh, dañu ñëw seet si benn jeune euh, boo xamante nii euh, mu ngi activé wu ci benn événement boo xamante ni dañ koy xaar at bu ne daaw nag ak Covid 19 bi gis nañ ñi amul dañuy ñëw am moom waxtaan laaj ko nan la koy waajee ren ak lan la tànn comme ten incha allah ci année 2021 bii nii laata ñuy xuus si waxtaan bi dañ koy bàyyi mu yox yéen monsieur Pape Amadou Mbodj la ñu dalal tey. waaw maa leen di nuyu di nuyu waa Dakar Buzz di nuyu waa Médina euh, di euh, wax ne merci par rapport ak invitation bi par rapport à la cérémonie de Calabasses de l'Excellence Awards. déjà bëggoon nañ xam pourquoi Calabasses de l'Excellence. waaw Calabasses de l'Excellence euh, leket la Calabasses mooy leket te leket dafa am ay valeurs yoo yoo xamante ne ay valeurs yu baax la moo tax tey jii ñu ñu ñu jël tuddee ko Calabasses mais tamit def ci excellence ndaxte nit ki lépp lu baax lu mu kii rek. Euh, ci excellence la bëgg. ren thème bi gis nañ euh, yaa ngi wax ci wàllu euh, chômage li tax ngeen tànn thème boobu noonu. waaw thème bi parce que chaque année dañuy jël ay thèmes su la paix en Casamance su le sur l'analogie vers le numérique ren nag ñu xool ne demande bi ak li fi xew mooy côté emploi moo tax ñu mën a waxtaan sur l'employabilité pour apporté benn solution te en plus ñu war a lancer benn plateforme bu tudd Kaay Xëy Kaay Xëy point. SN muy benn plateforme d' emploi euh, euh, d' apprentissage et de formation. daaw gis nañ ni événement bi amul woon li ko waral mooy euh, Covid 19 bi ren lan la ñu mën a xaar ci ay mbégteel rek xam naa ni ren moom du nar a yomb. innovation de taille di di di di remercier le corps sanitaire le professeur Seydi le professeur Bousso le professeur Souleymane Boub le professeur Cheikh Sokhna ñoom ñëpp ñu woleen leen sargal mais aussi def le flambeau. de la calebasse de l' excellence muy la flamme bu tudd Thione Seck parce que dañuy rendre hommage Thione euh, Ballago Seck aussi thème bi ñu jël mu nekk thème boo xamante ne thème sur l' entrepreneuriat ren dina am ay innovation de taille incha allah rabbi ci biir. incha allah rabbi euh, ci biir euh, mën nañ xam ndax am na ay partenaires yu lay jàppale ci événement bi ni mel. waaw part waaw yi bëri na. partenaires yi am na am na am na am na ay partenaires financier ak techniques ñoo xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi ciy jàpp. te ñu ngi ñu ngi jàpp ci événement bi parce que thème bi ñu jël thème la boo xamante ne thème sur l'emploi te partenaire bi surtout l'État je remercie l'État du Sénégal qui m'a accompagné par rapport à cet événement à travers 3FPT ASPT euh, Dakar Buzz euh, Seneweb Medina 2STV euh, tous tous les partenaires yoo xamante ji jàpp nañ ci ay ñoom le DG de l'AGETIP franchement parlant ñëpp jàpp nañ ci événement bi Euh, le rendez-vous, c'est le samedi 29 mai, hôtel Pullman, animé par euh, Aline Maïner hein, hein, et le vidéo Bess. Inch'Allah. Inch'Allah Rabbi. Merci beaucoup. Euh, di leen jox euh, rendez-vous le 29. Li ñu waroon def yëpp yàlla tax na ñu def ko euh, lépp. teg nañ ko ci loxo yàlla di ñaan yàlla le 29 je jeunesse bi am ndam parce que c' est pas Pape Amadou Mbodj c' est la jeunesse qui organise pour le 29 mai. ñu rappelé rek yi ñaata la ak table yi ñaata la. waaw entrée yi euh, la euh, table bi 500 000 ñu defuñu table 1 million defuñu table defuñu table 2 millions cinq table 500 000 parce que Covid bi la gars yi dañoo sonn moo tax ñu nekk ci. votre dernier mot. di sant samay waajur di sant di gërëm. di sant képp bépp jeune boo xamante ji maa ngi ñu ngi may accompagner ñoom Mariam saw ñoom Mami Mbodj ñoom Buri ñoom Fay euh, ñoom Bayo ñëpp ñoom Yande ñoom ñëpp jàpp nañu ci affaire bi ma leen sant di leen gërëm di sant waa Dakar Buzz di sant ngoone di sant ñëpp daal franchement parlant di ñaan yàlla ñu am ci ndam. yàlla na ci yàlla may ndam. amiin beaucoup merci beaucoup. kon ba samedi.